ku fi toogati ñaa mandat bay ñëw juróomi at dong la mën a nekk bii mu def nekk juróom-ñaar bu njëkk bi ndax mënu koo wañ ca la bokk ci ñaari mandat yi ñu wax ko mu leer. amatul dem ba ca biir mais ma at ma terminé jumaa ji ma doon def fii loolu amul. donc amul troisième mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari màndaa yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi dégg ko bu baax. amul risque troisième mandat wàññ bi bii bokk na ci ñaarel ba muy dire moy mekk bu mujj donc lolu war nañ ko dégg bu baax. mandat Macky Sall bu 7 ans bi mhm. bokk na sen décompte am déet. mandat wu président Macky Sall bu 7 ans bi. bu bokk na ci décompte bi. kon ça veut que Macky Sall amul benen droit. lu benen mandat amul benen droit. budul respecter li nga xam mom la constitution bi wax constitution bi dafa ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. xam nga nul moy kenn. kenn amul sañ-sañu def ñaari mandat yu tegale lu ëpp ñaari mandat yu tegale. ñaari mandat dong lay def. mandat bi moy bi bi tàmbale bi moy ben ba ca top moy ñaar mu dal di jeex. Hmm. si les gens continuent à dire que il est possible que le président fasse un troisième mandat je dis peut-être qu'on n'a pas lu. Et notamment l'article 27 mm. qui dit mm. très clairement nul ne peut exercer plus de deux mandats. le président de la République falati plus de 10 ans. parce que réforme bi article 27 de constitution nul nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Vous faites des trois, rek Moi, mhm. mooy président qui ci Macky Sall bu fi nous mënul def ñaari mandat constitution ak nuñ ko mën a bindee ak sûreté buñ mën a def su fekkee ne ki war a nekk gardien bi war ko doxal du démocrate on n'est pas à l'abri maanaam ëllëg ay jalgati mën na am. donc man duma ne problème bi problème mu constitution la mais problème mu nit ki war a appliquer au premier chef ki nga xam ne moom la tuddee gardien de la constitution te moom muy njëkk a jalgati moom ci boppam. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal. La constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. Abdoulaye monde démocrate mais constitution bi bu fekkoon ne respecté charte lu bare mënoon na ñàkk am ci ci ay démocrate nag duñ ko naan démocrate la démocrate la si jëf la ak ci gëm-gëm moo tax ma gëm ne na ñaan yàlla d'abord ki fi yàlla teg ëllëg nay démocrate dans lam d'abord du rek lu muy wéy di wax def ko slogan parce que tey cour constitutionnel wala conseil constitutionnel bu amoon fonctionnement normal mais li du am parce que dañu ñëw ñu ne président Wade yow mënoo nekk candidat bokkoo demal toog kon coow du am lu mu am am doole bu ñëwee justice su boobaa dañ koy tegaat ci yoon jeunesse sénégalaise qui est debout et qui dit non pour un troisième mandat à Abdoulaye